bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki daaray majaalisu ixyaa il ulum desuwaat nañ ci daara ji niñ ko baaxoo di ànd ak yéen ci sunu jotaay bii di jotaayu wér gi yaram ñu ciy waxtaanee saa su nekk wér gi yarami doomu aadama lii dimbali nit ki ci wér yaramam di ko ko sàmmal euh, tàmbali nañ ci ay jataay yu xawa fasantikoo fasanti bokk nañ ci liñu ñu woon mooy di waxtaane njëriñul garab yi wala gàncax yi jeexit yi muy def ci jëmmi doomu aadama ba ci naanuwaay yi moo xam muy lu mel ni kafe wala ataaya wala xeeti jus yi nga xam ne dañ koy naan ak lañ koy defaree bu ci nekk rek fas nañ yéene di ci indi ay bind am na lu ci jote weesu lu mel ni njëriñul garab ak màngo ak ya ci aju ak lu mel ni njëriñul naan googu ñuy tuddee ataaya ak la ci aju ak kafe ak ya ci aju yëpp ak lu mel ni gàncax googu ñuy tudde xaal ak yam làq yëpp ci xeeti njariñ tey jii nag ñuy mottali lu desoon ci waxtaan woo xam ne ni tàmbali woon nañ ko ci njëriñul garabug limon moo nekkoon suñu waxtaan wee mujj la ca ñëwoon ñëpp déglu woon nañ ko fa tabarakallah te ñu bari woo nañu di ko rafetlu jëlee ci itam ay njàngat yu am solo am ci ñu bari ñoo xam ne itam wax dëgg yàlla topp nañ ca tegtal ya yenn ba jëfandikoo ko gis résultat yi mu def bunt boobu nag tey jii moom lañuy àggale muy lu jëm ci njëriñul garabuk limon incha allah bokk na ci njëriñul garabuk limon mooy su nit ki di gaaw a sonn nga xam ne léegi léeg mu àgg sax ci apaat moo xam day tàmbalee dox di sonn wala sax muy yéeg lu mel ni ay escalier di sonn wala muy def yeneen mouvement di yëngatu yeneen yëngatu lum néew néew rek mu yëg ne dënn bi day daal di tàmbali di apaat muy apaat apaat yu metti yëg ay coona te fekk sax lim def sax war a gutoon a tax muy yëg ay coona loola jafe-jafe la ci wàllu wér-gu-yaram bokk na ci li koy saafara mooy da ngay ut ñaari kaasi limong kaas yi nga xam ne ci lañuy ñuy xeli ataaya ñu doon ko tuddee kaasu wit moo xam da ngay nan limon bi ba mat ko ñaari kaas wala da ngay am ndoxum limong moo xam ne nal nañ ko ba noppi nga natt ci ñaari kaas daal di ut dimi liter mana litre ndox nga xaaj ko ci digg bi moom la ñu tuddee dimi su ko defee léegi nga jël ñaari kaasi limon yooyu sotti ci yëngal ko ba mu jaxasoo nga def ko ci biteel euh, su ko defee di ci naan suba ba ngoon bu jeexee bu ëllëgee nga defaat noonu soo ko tegalee ab diir incha allahu taala loola dana saafarawu muy gaaw a sonn googu ak àppaat googu nga xam ne nii moom nga doon def lu ci baax lool la te gaaw ci lool dana defaat ci yow sax yeneeni jeexit yoo xam ne ni du yem foofu ndax ndox muñ boole ak limon bari na lu muy saafara te dikk na ci jataay bi ay yoon ci lu mel noonu waaye lii nag moom xaas satan la dafa jagoo saafara jàngoro ju mel noonu muy gaaw a sonn di apaat apaat yu métte métte Euh, ba tey bu dee koo xam ne euh, dafa am jafe-jafe ci wàllu tuur ndox nga xam ne day mel ni bu demee ci wanag di tuur ndox di gaanuwaay dafay am jafe-jafe tuur ndox maanaam du génn ci ni war a génni benn mu naju wala muy génn sax di dog du dogaat te loolu day indi jefe jefe ci wàllu wér gu yaram ndax naq bi dana mujj di metti façon metti boo xam ne ni mën na koo jural yeneen ndax am ndox moom bu war a génn rek daa war a mubashara mooy génn directement bañ naju mu di ko forcer wala bañ di génn di génnaat daa war a rek normalement loolu nag bu fekkee dafa dal nit ki bokk na ci li koy saafara ci limon mooy day ut nen nen nag suma ko waxee maa ngi ci jublu neni ginaari cosaan yi nga xam ne moom la ginaari ordinaire yi di nen loolu it mu indi ci ak leeral mooy lépp loo dégg ñu ne la boole ko ak nen ci wàllu wér-gi-yaram nen yi nga xam ne moom la ginaari élevage di nen taxul ñuy wax ndax nen yooyu daanaka ay fabrique rek la ay éléments yu ginaar yi di lekk mooy sabab ñuy nen nen yooyu waaye nen boo xam ne ni ginaar gu góor moo tëb ginaar gu jigéen te ñaari ginaar yooyu lekkuñ benn élément dañuy fori ni ginaar yi cosaan yi di foree rek ba yàlla dogal ñu ànd ñoom ñaar nen génnee ca bu ca nen yooyu amee nen yooyu moo tax ñuy wax neni ginaar piir amaa bu dee yii nag nga xam ne ni moom la élevage yi di produit yooyu moom daanaka baaxul sax nag ci lekk waxuma ak di ko fajoo kon loolu it ñu bàyyi ko xel ndax éléments yi ñuy composé ba ginaar gi lekk ko di nen élément yooyu dafay am ay jeexit yu muy def ci jëmmi doomu aadama loolu kon ku ko mën a wattandiku moo gën waaye bu ñuy wax nen ak njëriñ ya ci aju mooy nen yi nga xam ne ni neni ginaari ordinaire yi ñoo ko nen nen yooyu nag euh, da ci ut ñaari nen bu utee ñaari nen euh, boole ko ak limon su ko defee lu weex loolu nekk ci nen bi moom lay bati boole ko ak limon bi di ko naan wala bu ko neexee mu boole yépp mooy boole lu zone li ak lu weex li ak ndoxum limon mi jaxase ko ba mu jaxasoo mu di ko naan saa su ko dee def bari lum koy def dina mujj di gaanuwaay ci lu gaaw te jafe-jafe yooyu mu amoon ci yëpp dootu ko amati te day raxas naq bi ba mu set ba nga xam ne nii lépp lu doon ay fatt yu doon waral loolu di am ba gaanuwaay bi du jaar fi war a jaar di génne ni war a génne loolu lépp da koy saafara incha allahu sax daa tëju woon nga xam ne àggoon na ci mën a tudda am ndox te loolu day am nit ku tëju eh, wu lii da koy saafara da koy tijji ba mu set wecc tabarakallah ba tey bokk na ci njëriñul garabug limon day saafara li ñuy tuddee néew doole ci wàllu sëy maanaam li ñuy wax néew kàttan ci wàllu sëy nga xam ne kàttanul sëy day manki ci moom ba buy jotee ak soxnaam nam war a yëgee boppam du nu yëgee boppam wala soxna si itam nam war a yëgee boppam duna yëgee boppam yooyu danañ ci indiwaat beneen bunt buñ àggee ci bunt boobu nga xam ne nii day ñi ci waxtaanee néew doole ci wàllu sëy utal nañ ko moom itam jotaay boppam boo xam ne nii gëstu nañ ci lu bare bare bare bari pratiquer nañ ci itam lu bari jaar nañ ci itam ak ay nit yoo xam ne tegtel yooyu bañ ko jëfandikoo gis nañ ci ay résultat yu am solo kon loolu dana am buntu boppam incha allah waaye tey dañuy waxtaanee rek njëriñul garabug limon li muy jëriñ ci wàllu sëy wala sax muy gaaw a daanu mooy dana am kàttanul sëy néewul doole waaye nag day gaaw a daanu gaaw a daanu googu itam léeg-léeg dana nekk jàngoro léeg-léeg dana nekk jàngoro ju koy waral wala moy yéex a jugal maanaam sàkkaraam di yéex a jug te ku ne xam na ne euh, ñaari way dencante balaa ñuy jote dana jaadu ci góor gi sàkkaraam taxaw loolu nag léegi-léeg day gis ngay gis ñoo xam ne dañ ci am jafe-jafe ñu gis ñoo xam ne dañ ci am jafe-jafe yu mag maanaa liy tax seen sàkkara yëkkatiku bañ mën a jotee ak soxna léeg-léeg dafay nekk jafe-jafe loolu nag ci wéradi la ci wéradi yi la bokk yi yëpp nag ak yu ni mel danañ ci indiwaat yeneen jataay yoo xam ne nii dañ ko way jagleel xaasatan maanaam spécial ngir loolu ngir mën koo faram waxtaanee ko ba kum ci daloon nga xam ne lii moo la dal xamee ni lii moo koy saafara incha allah ndax da nga gis ñu bari di jël seen alal di ko ñàkk ci lu mel nii te du tax sax ñu am nañ ko bëggee te fekk tegtal yu cosaan yii rek moo koy saafara kon moom itam ginnaaw dañuy waxtaanee njëriñul garab ak limoŋ liñ ci indi tey ci njëriñul limoŋ mooy yu mel ni kum dal day wut juróom fukki doomi limoŋ juróom fukki doom ci ay limoŋ moom lay wut su ko utee mu di ko nal di ko nal di ko nal ba juróom fukki doom yëpp set wecc ndox moomu muy ndoxum lim moomu mu ut fukki nen fukki neni ginaar ba tey itam maa ngi ci jublu neni ginaari cosaan yii su ko defee fukki nen yooyu ndoxum nen mi muy ndox mu weex mi nga xam ne nii mooy nekk ci biir nen bi waxuma lu zone bi lu weex li laa wax ndax nen boo ko tojee day am ñaari façon ndox ndox mi day zone ndox mi ci des day weex ratax ndox mu weex moomu nag moom lay ber ci fukki nen yëpp ba mat mu jël ko boole ko ak ndox mam naloon ca juróom fukki limon ya daal di koy jaxase ak limon ya su ko jaxasee ba mu jaxasoo mu def ko ci butéel dugal ko ci biir frigo su xëyee mu natt ci kudd gu mag wala xaymaab kudd gu mag dal di koy naan su ngoonee mu nattaat kudd gu mag wala xaymaab kudd gu mag di ko naan loolu képp ku koy defee nii ma waxee ko te saxal ko fekk jafe-jafe yu mel dal na la ba noppi lii dana ko saafara insha allahu taala donte sax sakaram dafa demon, ba doy war lol sax mana delu lol wala mu new dole lol dana del wat ci nam ko beugé te du am ben jafé jafé mana li tuddé ay effet secondaire du ci am dana wat ci nam ko beugé won lepp lu manqué won ci mom dam dana del ci wat bam sante yalla lol fa tabarakallah kon fofu la ñuy tay Euh, tombeeg itam ñu tëj buntu bi nga xam ne ni ci lañ doon waxtaanee ci wàllu njëriñul garab ak limoom suñ dellusiwaatee nag ci beneen jotaay indiwaat geneen garab wala geneen gàncax ak la muy saafara ci ay xeeti ay wéredi incha allahu taala lii itam buñ ci noppee ci njëriñul garab yi danañ dugg itam ci lenn ci jàngoro yi lenn ci jàngoro yi. maanaam waxtaan yi ñuy def yi dañuy tudd njëriñul garab yi ak li ñuy saafara waaye bu ñëwee ba ci kanam danañ indi jëmmi jàngoro yi ci boppam jàngoro ju ne nan lay manifesté ci yaramu nit ki ba mu xam ne jàngoro jii moo ko dal ak su ko dalee yan garab la ko war a fajee ak bu koy faju yan la war a wattandiku diriw lim koy faju ngir paj ma mën a saafaraw ndax di faju ba noppi te lii garab gi di lii jangoro ji di bañ bàyyi woo ko itam du tax paj ma gaaw kon kuy faju am na yoo war a wattandiku ba keroog ngay wér yii yëpp daal ak yu ni mel incha allah mooy nekk suñu jotaay yi di ñëw ci kanam incha allah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh